tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di bus mtv Senegal bu leen fàtte di eh. abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan bës mtv Senegal video tey bi dañuy àddu jëm si déclaration bi nga xam ne Waly Diouf Bodian daat na koy def moom mi nga xam ne moo nekk directeur général bu port kàddu yi nga xam ne yëkkati na dafa mel ñu bari si patriot yi ñak nañu and ak mom limu wax dinañ leen dektal nak yoyé jangat yi nga xamné dess nako ci amal mom moy kané nak ñepp ñi nga xamné dañu sacc walap lu réew mi wala opposant yi nga xamné dañu dañoo nekk si réewum Sénégal ba paré nekk ay milliardaire kenn waru leena bayyi dal ñuy dox ci mbedd Sénégal yi numu leen neexee lolu kenn waru ko def ñom ñepp dañu war dox sen kaw dox sen garde bu jëree ñu japp leen ñu japp leen dijeenti xaaliss bi ñu yor mu nekk kaddu yo xamne nak ñu bari ci patriote yi wala sénégalais yi ñak nañu ci en ñu nekk euh état de droit manam réew bo xamne yoon da fi am kon nak duñu gis nit kuy dox rek yor alal nekk opposant nga ye dang koy japp lijeenti xaaliss bi fu mu fu ko jëlee dal té eh, do ko tek ci yoon mu nekk kaddu yo xamne dal doyna war ñu dal leen di déglu jàngat yu am solo yi nga xam ne nag des ne ko si amal mu nekk première partie bi. ñu bëggoon wax tuuti rek ci déclaration wu Waly Diouf Bodian bi directeur général bu port nga xam ne presse tey daanaka ñoom ñëpp moom la ñu xëyee ma déclaration bi nag moi je le une déclaration malheureuse même une bourde moi je considère que c'est am na ñuy wax ni boutade la waaye du boutade parce que wax ji moom mi ko wax. Euh, il était conscient te bi mu koy wax wax ju lu leer la bëgg a wax li mu bëgg a wax xam na ko néewul di fitna euh, xëy na fond bi amul problème may na xëy na forme mu du mën nañu wax ni fond bi xay na mën nañu mën ko dégg waaye ni mu ko formuler en tant ko xam ni kilifa la ci état de droit loolu la kenn mënul dégg ndax Waly Diouf Bodian dafa wax ni moom mënul comprendre ñu bàyyi ay opposants yoo xam ni au moins y a des dizaines de milliardaires ñu bàyyi leen ñu ñuy dox ci mbedd bi comme ça kenn bañ leen wax dara mu ne loolu mënu ko comprendre mu bëggee gouverner faaw ñu neutraliser waxul neutraliser waaye wax na ne bu bëggee gouverner daal faaw ñu lijjanti opposants yi nga xam ne c'est des milliardaires loolu nag muy wax ju grave yoo xam ne dans un état de droit kenn mënu ko nangu kenn waxul bu kenn def révision des comptes de kenn waxul bu kenn leeral xaalisu réew mi de mais waxin bi ci état de droit loolu du wax ju tegu ci yoon. léegi bu fekkee ne femmes mooy opposant milliardaire dañ leen a war a neutraliser loolu fa ci ban base lañ koy teg quelle base légale moo wax ni opposant milliardaire kay waru ko bàyyi muy dox doontu loolu vérifié guñ ko waaye bu fekkee ne dañoo mooy opposant milliardaire li ñu war a wax mooy ndax seen milliards yi ñoom ñoo ko moom wala dañoo détourné xaalis réew mi ci preuve yaa ngi bu fekkee ne milliards yi ñoom ñoo ko moom bu leen am na sañ am droit am milliardaire am milliard en tout cas na ko liggéey rek ndax opposant am milliard du tey la fi njëkk

am nañ fu ñu bëgg a jaar ñoom ñoom moom seen procureur bu ñu bëggee procureur topp ay nit nañ ko def dans une base légale bu fekkee daa am ñor ay milliards bu fekkee dañ koo détourné mais nañ leen procureur na procureur ubbi enquête yóbbu leen devant le juge bi enquêté bu fekkee ne xaalis réew mi leen am nañ sax parquet financier bu fekkee xaalis réew mi lañ lañ détourné ñu fay ko ba la la ci gën a néew ñu fay lépp kuñ ci war a yóbbu kaso ñu yóbbu la kaso kuñ ci war a bàyyi nga dem. mais toog nii bu fekkee dañoo bëgg a gouverner opposant milliardaire ay dizaine d' opposant mënuñu leen bàyyi pour pourquoi pas ban yoon moo wax ne opposant milliardaire kenn waru ko bàyyi ci bitti encore une fois bu fekkee ni opposant yi dañoo jël xaalis réew mi dañ koy rembourser jusqu'au dernier centime ndax moomuñu ko waaye noonu nag lañ koy def dans un base légal loolu lañ koy def dans un base légal mooy jëlul wax jëlul def déclaration cour de corps de contrôle yi ne Sénégal def nañ ay rapport rapport yooyu nañ ko jox justice mu traité ko président exemple cour des comptes def na ay rapport yu bëri rapport yooyu nañ ko jox justice mu traité ko nag def na ay rapport IGE sax def na ay rapport bu ñu ko déclaré bu bu leen neexee nañ ko jox justice yoon may na leen ko justice boobu traité dossier yooyu bu justice gisee ni am na ñu détourné xaalis réew mi ñu yóbbu leen devant le juge ñu àtte leen bu leen yoon condamné la leen yoon teg ñu tek seen kaw loolu muy dans une base légale li état droit wax bu fekkee ni ñooñu ay ministre lañ am na beneen yoon bu ñu leen war a jaaral ndax ministre dafa am lu ñuy wax ay ancien ministre dañu war a wax privilège de juridiction am loolu waaye ñoom xam nañ yoon boobu parce que bu fekkee ni ñi ñu wax ne ay milliardaires lañ c'est des ministre ministres ancien ministre dafa am privilège de juridiction ci sunu réew en tout cas procureur mënul xëy rek woo benn ancien ministre en tout cas naan da koy laaj ay xaalis rek da koy laaj loo defoon déedéet dañu am privilège de juridiction bu fekkee dañu bëgg topé ancien ministre nañ taxawul au cour de justice même si amuñu majorité nañ ko tanté bu jallu ñu xamni jallu bo boo buñu amé majorité ñi taxawul au cour de justice les anciens ministres la buñu leen bëggé top dans un bas légal ñu top leen mais mëno taxaw ni dafa am ay ancien ay ay ay milliardaire bu ñu leen bay ñu taxawal milliardaire yoy seen milliard buñ ko momé mëno leen la japp même bu dé milliard yi ñom momuñu ko dañ ko sàcc te yow mënoo prouver ne ñii dañoo sàcc milliards yi yow état mënoo ko prouver mais ça affaire la mais amoo droit parce que droit moom mooy kaaraange ñëpp état droit mooy kaaraange ñëpp état du Sénégal buñ fekkee ay ministre dafa ñàkk état du Sénégal amul ful la protéger bu am bañ sàcc ko ñu na xaalis bi état du Sénégal daa war a teg ay mécanisme bu fexe ba prouver ni ñii dañ maa sàcc bu ko état munul prouver kenn warul jàpp kenn parce que droit preuve la soxla waruñoo def ni président Macky Sall defoon xëy. Karim Wade benn corps de contrôle bu ko épingle am Karim Wade am na gestion Sénégal jiite na ay ministère amul rapport cour des comptes amul rapport UG e, benn rapport bu épingle Karim Wade ñu xoolee amuñu rapport ñu bokkoo topp dañ li président Macky Sall lii la waxoon daan ni am na ay fi nekk nangam nangam pour mu gouverner jóg daal di daal di dem ci CREI CREI nga xam ne ci àddina bi yëpp respecté wu benn droit juridiction boo xam ne day def lu ñuy wax renversement charge de la preuve nga xam ne yow da lay dikk topp la. ñu ne lii ma lay jiiñ yaa ko moom léegi yow indil preuve yi wane ni yow yaa ko moom mais loolu amul fenn ci àddina bi ay tappale la malgré que Karim moo waxaat ko amul benn corps de contrôle bu épinglé Karim Wade fenn fu ñu waxee ne Karim Wade ni mu dépensé xaalis réew mi jaarul cent mille milliards loo xam ni waxi wax waxi caaxaan ànd ko amuñu preuve man waxuma Karim Wade dara mais ba fii may waxe kenn andiwul preuve bi woon Sénégal même bu ko defee amuñu preuve

erreur boobu nag Macky Sall defoon je pense que ñii fi nekk duñ ko def tey buñ bëggee topp ay nit ay nañ sukkandiku ci ay rapport si ci base légale bu dee ay ministre lañ ñu teg haute cour de justice ndax yoon moo ko wax bu tee ñoo xam nag du ñuy ministre ñu topp leen procureur mi ngi fi ne ubbi enquête sur la base des rapports bu dee dafa ay directeurs yu détourné ay rapport wax ko nañ transmettre dossier yi procureur procureur ubbi enquête bu amee ay charge yi doy mu yóbbu ko devant le juge d'instruction juge ubbi enquête juge bi amee ay charge yu doy mu yóbbu ko devant le juge ñu àtte leen li ñu respecté seen yoon seen droit lu yoon wax ñu def ko mais munoo toog daal ni waaw am na ñoo xam ni nangam nangam dañ ay milliardaires lañ waruñu leen bàyyi ñu taxawal sur quelle base ku am say milliards kay bu la neexee nga lekk ko même ku détourné ay milliards te état amul preuve kenn mënu la jàpp dañ da ngay lekk say milliards état du Sénégal en tout cas nguur gi bu mu def erreur bi nga xam ne moom la ñu fi ñu fi jàlloon def.